Euh, annulé liste bi nga xam tam tamit Ousmane Sonko fa la nekkoon di liste li nga xam que modi di Wi à l'Assemblée nationale exactement booral li nga xam que modi euh, deuxième partie bi dem c'est-à-dire li nga xam que modi euh, ñi ñëw ci deuxième liste bi alors boobu batay tey naka ngay analyser li nga xam que modi di démarche si Tanor ndela Fall est-ce que réellement aujourd'hui japp nga ni itam honoré na administration bi nga xam tam mu ko jité jëm na di nga xam ne la direction générale des élections. yow dafa mel da nga xamul nako sarax. xam nga lan mooy nagu sarax. maanaam <laughs> dañ ko tayle ok ca Ndéla saa bi <laughs> moom. Hmm. <laughs> ca Ndéla man dama koy yërëm ndeysaan. boo xoolee boob bi dafa gën a dugg dafa gën a gàtt. dafa gën a am problème. xam hmm. yu métti la am. Hmm. xam li gën a bon ci. li gën a bon mooy ngay dem te yow yow mii di dem demoo ak sa sago ca Ndéla demootul ak sagoom. wallaay laazim. dem la sago mooy c'est-à-dire da nga jàpp ni. comme mandikat comme mandikat comme ku ay tànkam damm. xamatul fu muy taxaw. xoolal hmm. dafa wét. gars yi te léegi gars dañoo nekk ci phase yoo xam ne ñu la taylee buñ la taylee ñoom duñu nekk di la du ñu du ñu wut ay ay ay ay ay waxkat teg leen ci télé bi pour ñu lay défendre te lay defal kenn défendre ci télé yi ak ci rajo yi ci internet bi ñom ñi nga xamné ne ñoo waroon est-ce que xam nga ni même même le parti. Hmm. la même le même même le parti présidentiel. Hmm. Macky Sall ñom seen bopp bo xolé dañoo melni lu dañoo melni lu lu xawa sey ci milieu politique bi espace politique bi dañoo melni ni gisatoo leen ay ñu ñu ngi gis ñu ci melni ay Malick Ndour. Pape Malick Ndour ku ñak jom kooku. ñu dong ngay dégg ñu tok ci télé bi di signe te seeni i waxi bopp la wax ah. c'est-à-dire que du dégg ku naan ca faal Fall lim def loolu la ko yoon may ca Ndella xam na ni moom moom ci ci ci ci ci jëm boppam. Hmm. xam na ni tappalekat bu mag la te xamatul fan lay teg tànkam te man dama koy dama koy lancer benn message xam message mooy lan. mooy mu revenir dafa weesut. Hmm. justice moo ko ëpp doole. Hmm. dafa tranché nekkul. Juste bi moy ordonné pour ñu dem jox ko par force parce que juste des atte bu attee day dem taxaw ni dafa hmm Sénat dafa wara a fuqati Sénat. mais Sénat bi ñu dissoudre euh, autant que pour moi. Euh, est ce que dañuy def benen communiqué est ce que est ce que ki euh, ñëw ni ki ñëw tok ni day ñëw def communiqué. bu bu waroo ak waa ji fi jóge communiqué bi mu def. donc japp ni nga ni loolu dana am. donc japp na ni continuité mo wara am. dama lay lacc yow kay lay lacc dama ne lay ba xam da nga japp ne waji di ñëwaat ni tay nga xam ne mom retraité na bu yàgg ki ñëw ni retraité mm. na bu yàgg mm. léegi mom wajo joy yow da nga japp ne waji day ñëw def benen communiqué bu woro ak njiit li fi newoon bi muy def on peut tout s'attendre réew mi Sénégal mm. président Macky Sall lima gëm ni moko fi jëlé du ay élection yu transparence de Abdoulaye Sylla le nouveau euh, directeur de la Sénat. retraite mhm. mu yàgg depuis deux ans ci ginnaaw retraite la lan lay defati. mais nan la ko daal di jàngatee ñëwam ci Sénat euh, c'est des fins politiques wala da nga jàpp ni euh, président Macky Sall dafa xam ni moom ki nga xam ne que moo di Doudou Ndir. jamono da ko weesoo xam nga président Macky Sall bu mënoon a jëlee saa fay. Hmm. bu ñu ko mënoon a raje génn ko ci justice bi da koy def xam nga loolu la toll. ok man. président Macky Sall dara moo mënul bett ci moom. Hmm. wallaay lazim dara mënumaa bett ci moom. parce que moom voie bi mu jël mooy moom man duma bokk mais Sonko yow doo bokk fexe woon na ba neutraliser justice bi à travers ak ay nit yoo xamante ni ñoo ko doon jàppale ñu ci mel ni euh, Major Fall musa Fall. Euh, Félix Antoine Antoine Félix Diome ñaax Diome <laughs> ñooñu ñooñu ñoo ñooñee ñëpp ñoo ko dooleeloon pour moom mu neutraliser justice bi ku wax ñu duma jàpp tëj comprendre nga. Mm. ku wax ñu ku ku ku àtte lu bokkul ak li ñu bëgg wala kuy waaj a àtte ñu teg la pression mun ñu la teg pression ñu jëlee la ca foofu yóbbu la feneen. sanctionné la xam nga. Mm. ci yooyu noonu la ñu fexe ba nga xamante ni bëgg neutraliser justice bi ñun. moo tax man la réew mi yoon du fi musa du fi gaaw am bu xalaat. donc jàpp na ni changement li nga xamné que modi euh, poste yi nga xamni tam yobou yóbbu ko fa nga xam ni itam mooy Sénat c'est des fins politiques mais opposition bi ak société civile bi ñoo don sac pour Doudou jël li nga xam que modi di retraite am donc comment comprendre mo wara nek li nga xamné que modi ay fins politiques Leuz est-ce que des fois euh, tomber mo wara ay gaaf parce que depuis 2009 batay mi ngi ci institution bobu moom ki nga xamné ne mooy Doudou des fois gars yi boo xoolee ci techniquement quoi gars yi muusuñu hmm. ñii di dogal ak ñi nga xamante ni ñoo lay ñooy xalaat ñooy xalaatal ñii di dogal. Hmm. au fait ñoom muusuñu quoi. xam nga ndax muusuñu. ok euh, am na moment yoo xam ne du moment yi ñuy jëlee décision. Hmm. du ngir moom même fii jeexal na waroon na dem bu yàgg du moment yi nii lañ ko waroon a jëlee fii en fait tombé warulul ay gaaf. côté boobu le contexte est inapproprié. yow da nga mën dindi sama xel ne que ndogal bi Doudou Ndir jël moo tax ñu jële ko fa mënoo ko jëlee sama xel yow mi di ma poser ay question ma lay tontu. yow loolu nga gis est-ce que Doudou Ndir kese lañ fa jële l'ensemble de son équipe. <laughs> ah waa kër kee dañoo waroon soppi njiit li rek ba fa ña ca des waaye dañoo soppi ba soppi kayit ya. Hmm. seize ya ñu dindi ko. Hmm. sànni teg fa yeneen seize saa waay nañ waxante dëgg. képp ku dogal lu président Macky Sall buggul. Doudou Ndir dafay wane ne moom position bi président Macky Sall taxaw moom taxawul foofu. dafa taxaw ne ko fi ñu ko teg mu war a liggéey ngir askan bi dafa hmm. liggéey ngir askan bi loolu kese la loolu rek moo fi nekk amul leneen. fii lépp lu waay di def suba bu ngoon jot boo ko mënee assumer ba ci sa biir bàmmeel ñu ngi lay déglu lépp lu fi waay wax bu fekkee mën nga ko assumer ba sa biir bàmmeel. ñu hmm. ngi lay déglu. Hmm. lépp lu fi waaye mën a ate nga foog ne di ko mën a ate ba sa biir bàmmeel ñu ngi lay déglu gis nga tey ni ñi Sénégal wéetee gis nga tey ni Sénégal sëngéemee gis nga tey ni réew mi mel est-ce que xam nga ne réew mi fi mu toll nii boo dee ci wàllu wax ci wàllu jëf ci wàllu activité réew mi dana teg vingt pour cent ci jeunes yi wala quinze pour cent ci jeunes yi ñu ci ndox mi fi mu toll nii mm. ñu ngi ci loxo espagnol yi ñii ñu ngi ci yoonu Nicaragua bi di dox mm. vingt yeneen vingt pour cent ci jeunes yi ñëpp ñi nga xam ne fi mu toll nii ñii exilé nañu génn nañu réew mi ñii ñu ngi ci seen i bërëbu liggéeyukaay toog. alors bokkatu. alors réew mi ne teg quoi c'est-à-dire il faut nga xam ni am na loo xam ni kenn du ko kenn du ko xëcci tey ma toog ci réew mi jiite leen par force jaay leen doole par force ci nga nit ñi bu xeexee ba mënatuñoo xeex ak yow. duñu ñu sàkk pexe. mais jàpp ni tam dafa nekk di suivre son mandat. terewuñu ko. mu mm. suivre mandat nee na aussi di def er troisième candidature. donc xeex bi ban fondement la am concrètement loolu ban xeex man digluma kenn mu xeex ak Macky Sall fi mu toll. te kan mooy xeex ak Macky Sall ana ndaw ñu waroon xeex ak Macky Sall ana ndaw ñu mm. cinq 5% ñi ngi ci kasso bi 20% mi ngi ci geej gi. yeneen vingt pour cent mi ngi ci mi ngi ci biti exemple kan mooy xeex ak Macky Sall. mu bokk parce ñu ne seen arme dafa mel ni temps dafa xaw a jeex quoi. non attends qu'est-ce sa se pour pourquoi sa silence. xam nga yéen ñi nga xam ne itam yéen a yàggoon wootee gassa gassa comme maam mortel. xam nga xam nga xam nga xam nga man. Hmm. aw ma par carte membre bu Pastef. Hmm. du ma un membre de Pastef hmm, quoi mais soutenir na d'accord wax place. Hmm. mais mën wax analyser ak gis. Ah, ñu lay c'est ci ñi may ci ci ci ci ci Ousmane ak activité yi nga xamante ne Pastef ñu ngi mëne. ok di nga ne. Hmm. leen ñu hmm. xamu daay ba paré daw. Manam. xam nga xamu daay ba daw. dafa bugguma di citer turu nit parce que nit koo citer rek mi ngi xaar suba lim lay wax fi mu lay tontu comprendre ci ci ñàkk fayda yooyu noonu parce que te fekk na Sénégal. da ngay wax mooy ñiy exilé ñi daw justice. képp ko exilé bàyyi Ousmane Sonko ci lalu hôpital mu tëdd. baadoo la nga workat nga. Hmm. ñoom ngeen jéem a turee. wallaay lansim. ñoom Ousmane Diagne. wallaay lansim. gënuñu Ousmane Sarr. mais suñ ñëwee ñu jàpp leen léegi gënuñu Ousmane ah, Sarr xoolal léegi moment donné kan mooy wax su nekkee ñoom dañuy ragal ñu jàpp leen président Ousmane Sonko bu ragaloon ñu jàpp ko du dem na génn na réew mi ok Ousmane Sonko bu fekkoon dafa ragal rek ñu jàpp ko hmm. Ousmane Sonko demul gé amul woon ay possibilité yu muy génnee réew mi hmm. bu fekkoon dafa ragal nit ñu jàpp ko sam waa ji nañ ko waxante dëgg te dee hmm. ki ki exilé laa la wax ki dem démb waxuma ne ñuy dem ci gaale ji seen booy dem ci gaal yi xam nga ne man sax am naa ay xel sama xel a ngi sama benn xel mi ngi xalaat dem ci gaale quoi. ok xam nga ñooñ ñooñu dañuy wuti. Hmm. man fii li booy def nii. bul dem ci gaale yi wallaahi sama xel soxla. <laughs> non attends bëgguma sax nga yaax débat bi mais dama ne. li booy di def nii sama xel a ci. mais dama bëgg expliquer benn affaire Fallou. Hmm. gars yi di exilé ñii di daw di génn réew mi. nga xamante ni dañ koy def làqatu ji làqatu ji quoi ñi dem mal yi ñi dem ci yeneen dëkk yi ñi dem feneen ñi dem feneen hmm. te nga xam ne ñoom ñoo taxawoon di incarner di incarner hmm. combat bi citoyen di incarner hmm. injustice taxaw ci kanamu président Ousmane Sonko fexe ba président Ousmane Sonko nekk ci difficulté yi mu nekk nii tey nga xamante nii wallaahi lazim wallaahi bu doon moom képp moom dong moom dong mën naa toog fee di liggéey di lekk ay millions dëkk fii ci kër góor gi. donc da nga jàpp ne danoo war Ousmane Sonko. mais naka nga mën a dippee Karim Xurum Xàq mi ngi ci kaso bi. Cheikh Oumar Diagne. mi ngi ci kaso bi. Hmm. Ousmane Sarr mu ngi ci kaso bi. Fala Fleur Ben saw sama xarit la mi ngi ci kaso bi. ak jigéen ñi aussi bëri nañ trop. bëri na jigéen ay Fala Fleur. ok ñoom Amidia. ñoom ñëpp ñu ngi ci kaso bi. Hmm. mais ñooñu bu fekkoon dañoo bañoon ñu jàpp leen duñ daw. Hmm. mais lan moo tax ngi gis yenn nit ñi ay Ousmane Diagne xuma di daw naan ñoom dañuy daw dañuy wax boo daw kaa yor sa téléphone di wax ne que mun a. booy xeex ak Macky Sall mën nañu. xeex ak mais ku nekk ak mais ku nekk sa wàllu seen combat bi. kaa ñu wax mënu mënu mënu comprendre benn affaire. gis nga ñu dañuy fenante te faalewu ma ku ma tàggee suba. ñu dañuy fenante xam nga hmm. fenante mooy lan mooy ku nekk ak sa stratégie de combat stratégie de combat am fu muy stratégie mais suñu jàppee ñëpp njëkk kan may wax concrètement ne kan may wax non Macky Sall jàpp ñun ñu ñu na Macky Sall jàpp ñëpp bu après est-ce que c'est la fin du monde est-ce que day fekk day tax dund bi jeex hmm. dund hmm. man li des ci nguur Macky saal buggo naa mu jàpp ma ci sax parce que nguur gu jeex la dama mën a def un an